la nag yaa ngi wàcc wuy yaa yooyu nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi wàcc barki Bamba nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi wàcc nag yaa ngi li liñ jënd daaw yokku nañ ku yokkul wàññeeku. barki sëñ Bamba. ah. ndeysaan. ndeysaan. am looyu bari na ma yàgg sa famille Iliman Lam Iliman xaritam la xaritam la xaritam la nag yaa ngi wàcc. nag yaa ngi wàcc. ñoo ngi wàcc. ñoo ngi wàcc. ñoo ngi wàcc. wil ñaa wil ñaa. wuy ay. ay waay. ay waay. woy yaay. woy woy. nag. woy yaay. woy yaay. woy sama. wuy yaay. wuy yaay nag yaa ngi wuy yaay. wuy yaay nag yi. wuy nag yi. woy yaay. woy woy nag yi. ay waay lii wuy yaay ndànk wuy yaay wuy nag yi ay waay nag yi nag yaa ngay wàcc ña ngay wàcc ña ngay wàcc ña ngay wàcc ña ngay wàcc ña ngay wàcc nag yi wàcc nañu nag yi wàcc nañu nag yi wàcc nañu nag yi wàcc nañu nag yi wàcc nañu Balla Gaye nag yi wàcc nañu Balla Gaye ngay filmé nagu baay ja Balla Gaye ngay filmer nagu Aziz Ala Ndiaye yi Balla Gaye ngay nagu Aziz Ala Ndiaye yi Balla ngi nagu Aziz Ala Ndiaye dugal xool sa nagu papa yi Balla ngi koy filmer barke Serigne Bamba eh eh bu ñëpp dugg de barke Serigne Bamba l'homme qui a fait des preuves Aziz Ale Albourakh Dador barki borom Touba nag yaa ngi nii maytul balaa ñoo dugg ci pax yi maytul balaa ñoo dugg ci paxe nag yaa ngi nii woy yaay woy nag yaa ngi nii barki borom Touba laa yi lay la waaw eh, Seexul Xadim moo toll noonu. dëgg la de barke Seexul Xadim yàlla na yàgg. waaye Sëriñ Bamba daa yàggal ma. mi ngi nii de. Alioune Ndiaye jàmbari Sëriñ Bamba ji mi ngi nii de.